أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñu ngi ba tey ci suratul baqara ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala ñu ngi jël tey aaya 186 mu nekk benn aaya bu nu sunu borom subhanahu wa taala di jàngal ñeenti mbir bi ci njëkk mooy jegeel gi nga xam ne sunu boroom subhanahu wa taala jege na ko jaam ñi qurballahi taala min al ibaadi is al awaalimu kulliha fi qabdati wa taxta sultaani wala yabcadu an illahi shay'un min xalqihi إذ ما من كائن إلا والله والله يراه ويسمعه ويقدر عليه وهذه حقيقة القرب tomb bu njëkk bu ñu aaya bi di jàngal mooy jege gi nga xam ne yàlla jege na ko jaam ñi amul benn jaam bu yàlla sori jaam ñépp la yàlla jege Sénégal ñaata million lañ douze ah douze douze millions yëpp la yàlla jege est-ce que président bu bees bi douze millions yëpp la jege ah amma allah subhanahu wa taala duñu wax sénégalais waaye dañ naan jaam yëpp yàlla da leen a jege allahu akbar lu tax mu jege leen mooy is al awalimu kulliha fi qabdati mboolem monde bi mbindi fi addina bi ci kattanam la nekk moom allah subhanahu wa taala ci ngëbam ci ngëbam ci dànkam la nekk wa taxta sultaanihi ci suufu pouvoiram lañ nekk ñépp ci suufu pouvoiram lañ nekk xoolal élection yi passé am na ñu jóg ne ñun li ñu bëgg mooy am yàlla ne leen li ma bëgg mooy man mooy am yéen li ngeen bëgg du am ban moo am li yàlla bëgg parce que moom moo mën yàlla moo mën moom mooy faalun li maa yurid lu ko neex rek mu def yow loo def ñu laaj la lu tax nga def ko yow loo def ñu laaj la ko yàlla moom lu mu def wala yusal am maa yafal yàlla du def ba nit ñëw ne mais mais yow pourquoi amma allah yow wahum yusaluun yow dañ lay laaj pourquoi lu tax yàlla moom lu mu def kenn du ko wax lu tax waaw sunu borom subhanahu wa taala lépp ci suufu nguuram la nekk wala yabadu an illahi shay dara soriwu ko lépp a ko jege amul lu sori yàlla xoolal alquran moo ñu wax ne huwa aqrabu ilaykum min hablil warid am na benn cordon bu jaar sunu diggante bakkan ak sunu xol moom mooy indi noo bi noyyi bi ak di ko delloo muy xëcc ngelaw li loolu fan la nekk ci yow yàlla nee la maa la gën a jege cordon boobu maa la ko gën a jege huwa aqrabu ilaykum min hablil warid man maa la gën a jege loolu nekk ci yow maa la ko gën a jege man yàlla kon yàlla nu mu mel ak yow dara sariwu ko moom allahu subhanahu wa taala is ma min kainin mu ne ndax lépp lu mu mën a doon illa wallahu yaraahu lu dul yàlla mu ngi la teg gisam yàllaa ngi lay gis lu mu mën a doon yàllaa ngi koy gis yàlla lépp la gis amul lu mu gisul yàlla leen doomu la gisul ci àdduna am na lu mu gisul de lenn kese la ndax xam ngeen ko ah ah ah moroomam loolu da la gisul mais leneen li mu ngi koy gis moroomam da la gisul te du ko gis waaw moo tax yenn saa nga dégg nit juum ne diw amul moroom ah kay am na moroom kii mu dendal moroomam la nit la ne moom ndax am na lu nekk ci moom te nekkul ci kii kon kay sa moroom la yàlla dong moo amul moroom moo tax ñu ne mu ne qul huwa allahu ahad moo tax mu nekk kenn ma min ilahin illa allah moom dong moo tax mu nekk yàlla keneen nag am nga moroom mu ne amul lu mu mun a doon lu dul yàlla mu ngi koy gis wa yasmauhu mu ngi koy dégg allahu akbar xoolal xobu garab yi dañuy sàbbal yàlla yàlla di ko dégg mbott yi ci biir ndox mi di sàbbal yàlla di dégg jën yi wa in min shay illa yusabbihu bihamdi rabbi amul ya wa in min shay la yàlla wax de min shay wa in min shay amul dara ci kaw suuf lu dul mu ngi sàbbal yàlla waaye yéen yéeneen ñi nga xam ne laa tafqahuna tasbihahu yéene yi nga xam ne du ngeen comprendre lii da ngay romb xar mi naan mbee nga yaakaar ne mbee la wax fekk day sàbbaal yàlla yow yaa déggul nga romb mbott bi mu naan ngooq nga yaakaar ne ngooq la wax fekk day sàbbaal wa in min shay la yàlla wax amul dara lu dul mu ngi sàbbaal subhanahu wa taala sunu borom mi ngi koy gis mi ngi koy dégg mu ne wa yaqdiru alayhi yàlla dong moo am attan ci loolu yàlla moo mën loolu doomu aadama yi wala xam ne yàlla rek moo am kàttan ci ñoom doomu aadama yi war na leen a leer nañ ne yàlla dong moo am kàttan ci ñoom keneen mënu ko xoolal tey nit lu mu la mere mere mere mënu laa teree noyyi mën na la teree noyyi même bu la tëjoon kaso mënu laa teree noyyi ngelaw li mënul fexe nga jël ci sa wàll cëy su ko yàlla joxoon nit ne ko yow yow yaa yor magasinu ngelaw li nga xëy am koo mere am na benn dëkk boo xam ne benn góor gu baax génn na àdduna yàlla na ko yàlla yërëm dafa nekk ci digg dëkk bi di woote sunna sëriñu dëkk ba mere ko ne ko bàyyi li ngay fi woote ah yàlla nee na yonent bi nee na naa ko bàyyi su ma ko bàyyee lu may def sëriñ bi mere ko dem boole ko gendarmerie gendarmerie ñëw parce que daf leen ne kii kii jaaykatu drogue la dafa yor ay arme këram góor gi xëy dem école jàngale ji rek gendarmerie ñëw wàcc kër gi ànd ak ay xaj ñuy fuye kër gi fuye ba fuye duus bi gisuñ dara gisuñu sax paaka colonel gendarmerie bi ne ah man de mosuma gis sëriñ bi fen waaye nag doy na waar xam nga booyee na ko police police mënulu ko dara parce que gisuñu gisuñu li mu wax xam nga lu ñu def forage bi nekk ci dëkk bi forage bi forage bi mooy moo jox kër yi ndox sëriñ bi joxe ndigal ne na ngeen dem ci moom tiwoom bi dem këram ngeen dagg ko pour këram du am ndox gis nga góor gi yoroon forage bi jël peel di gas ba jot tiwo yi ñuy xool ba xam téew bi jëm këram mu jël paaka di ko dagg góor gi génn ne ko looy def mu ne ko téew bi jëm sa kër laay dagg mu ne ko yàllaa ngi lay gis góor gi dafa dagg téew bi ba pare rek yàlla dagg sidit bi doon téye ay sawam fu mu toog day saw waxuma leen ay léeb de mun naa leen wax léegi turu dëkk bi wax leen góor gi waa kii xam na ci dara kon kii toog kon xam na ci dara kon xam ngeen ne waxuma leen ay caaxaan waxuma leen ay gént waxuma leen beneen dëkk Sénégal laa leen di wax Sénégal gi moo tax kuy ragal ragalal yàlla ñu dem dagg tiwo ndox mi bi ñu daggee tiwo bi yàlla kale forage bi forage yu amatul ndox gis ngeen dañ ko doon xañ ndox yàlla xañ dëkk bi yëpp ndox yemuñ ci loolu de te këram rek moo am teen nag këram moo am teen nit ñi di dem rooti mu ne leen kaay leen root sama kër teen noonu waaye dafa am sart de ku fi dugg da ngay muuru muuru dugg root ku muuruwul du dugg sama kër nga gis paa bu taxaw ne jabaram damal dëkku sàngam nga rooti mu ne te ndox mi ne fi damay muuru root fii moo gën a jege paa yi commencé am problème ak seeni jëkkër seen jabar ak seen njaboot nit ñi di muuru di dugg ci kër gi di root mbir bu doy waar ñu jëli benn njabarkat dëkk bu sori mun naa tudd dëkk bi pour njabarkat bi ñëw xërëm góor gi mu dee njabarkat bi dafa tëdd guddi dee ci biir néeg bi ba nëpp ndax kuy ragal ragalal yàlla yàlla bu nammee ku ne yàlla li mu namm du am da ngay sono sabab loolu moo tax mbokk yi foog ñuy dénkante di jàng alxuraan gis ngeen alxuraan bi bépp xissa bu mu ñu nettali yàlla waxu ko nii pour ñun ñu dégg ko dem xoolal diggante Moussa ak Firawna yàlla programme Moussa day juddu Firawna programme liir bu juddu dama koy rey bu doon yow la nooy def boo doon tukki nga yëg ne am na nit ñu lay koj ci aéroport lan lay rey nooy def da ngay tukki da ngay fam bu doon sa doom la nga yëg ne am na ñu ko koj noo koy def eh kaay kaay firawul bàyyi ko yàlla programme firaaw na programme yàlla bàyyi programme yi daje firaaw na di rey di rey di rey ba dajee xale bi xale bi juddu firaaw na yëgu ko yàlla mu ne teg leen ko ci ndox mi ndox mi yóbbu ko ba kira firaaw na firaaw na dina ko yar ba mu màgg bu màggee mu folli ko moo ko gis ko nii muy muy liir yi muy rey ti góor lay rey mu xool muy góor mu ne si kii daal dama ko bëgg wa alqaytu ilayka mahabbatan minni yàlla mu ne mu xool xale bi bëgg ko ma dugal ko ma dugal xale bi ci xol bi mu ne ñi ñuy rey de kii bokku ci kii moom kenn du ko rey mu gis nga yàlla mooy reyaat yàlla dénk ko ki ñi muy rey yàlla dénk ko yàlla du du morom moo tax gis nga soo amul iman yu ndaw ndawaan yi di xew fii bu la tiitalee dootoon dem jàkk fajar ba amul iman buñ la xuppee dootoo julli dootoo jaamu yàlla dootoo te lii lu ndaw la li ñu yàlla di nettal ci alxuraan ci ay xissa diggante nit nit ñi te ñooñu du ay nit kese lañ comme ñun mais lan lañ ñu rawee mooy dañoo am ngëm ngëm lañ ñu rawee ngëm foo ñu am ngëm pour ñu jëriñoo alxuraan bi sunu borom subhanahu wa taala daf ñu jege wa haadihi mu ne lii xaqiqatul qurbi lii mooy dëgg dëggi jege yàlla def ñu jege soriwunu pour nga dem di ko wëri di laaj paas wala nga dem ci nit naan ko jegeel ma yàlla yàlla jege la looy dem ci nit naan ko yóbbu ma nee na huwa aqrabu ilaykum min hablil warid buum bi leen di tax ngeen di noyyi diggante poumon bi ak bakkan bi muy yóbbu ci cœur bi oxygène bi yàlla nee na maa la gën a jege cordon boobu maa la gën a jege kon kay foo jëm looy wuti waaye ñàkk dégg ñaareel bu ñu jëlee ci aaya yi kiraahiyatu raftu sawt dañoo sib bàyyi leen xel fii dañoo sib yëkkati baat ci jaamu yàlla kuy jaamu yàlla jarul muy yëkkati baatam illa ma kaana fi talbiya wal adaan lu dul nodd ak wax labbayka allahumma labbayka ñaar yooyu rek la ñu mayee ko wax ci kaw yeneen yëpp sib nañ ko wal iqaama ak iqaama ñett yi nodd dañ ko war a yëkkati wax labbayka allahumma labbayka ci aj dañ ko yëkkati iqaama dañ ko yëkkati looloo tax yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam mu ne alxuraan di ñu nettali mu ne wa zakariya iz naada rabbahu nidaan xafiya gis ngeen Zakaria ba muy woo yàlla ban woo la ko woo dafa yuux ne ko yaa rabbi déedéet nidaan xafiya kenn déggu ko foo woo yàlla ne yàlla man de kenn laa su ma deewee du ma am ku ma donn ma bëgg nga may ma doom mu woo ko yàlla ndànk moo tax dañu bëgg ñaan li ci gën mooy waxal ndànk ñaan waxal ndànk jaamu yàlla yi rek la ñuy yëkkati yi des yëpp ndànk lañ bëgg nga wax ko ndànk sa digganteeg sa borom mbokk yi yustahabu sopp nañ al israr yelu bi du'a i ñaan ñaan dañu sopp ñu yelu ko kon ñetteel ci li ñuy jëlee ci aaya bi ñu war a jël mooy wujubu war na al istijaabatu lillahi taala wuyu yàlla woo wuyu si yàlla dafa war wujub dafa war yàlla woote dafa war ci jaam ñi ñu wuyu ji nan la ñuy wuyjee bil imaani gëm yàlla wa saalihil amali ak jëf ju baax noonu la ñuy wuyjee yàlla loolu mooy ñetteel ci li ñuy jëlee ci aaya bii ñeenteel mooy ar rushdu fi taatillah jub mooy ci mu ci topp yàlla Sénégal da ngay gis ku jub kuñ ne dafa jub te du topp yàlla pourtant kii ak a baax te du julli ak a baax du jaamu yàlla ak a baax yaram baa ngi ci biti ñu ne pourtant soo bëggee soxna takk ko yow ween yaa ngi ci biti de nga gis ween yaa ngi ci biti jumbax baa ngi ci biti pooj yaa ngi ci biti benn waaye ne la ku baax la takkal ba nga takk boo takkee di nga xam ne baaxul wala yonent bi naan na ngeen moytandiku nëtëxu gattaxu sën ñan ñoo fi olof ñan ñoo fi olof nëtëxu ah gàncaxu sën xam ngeen gàncax bu saxee ci sën ku yema moytandiku ndax doo ci lekk day rafet verte am fleur waaye booy xalaat du ñor foofu lay yem ci fleur bi lay yem mooy jigéen ju rafet ju amul diine ba pare da lay fitnaal day nekk ci lu ko neex te doo ko mën a fase xam nga lu tax dafa rafet da nga naan si mu ko fase xam naa ñoom moo doo ngi toog di xool moom la ñoom mu fase ma ko ñu koy takk gis nga nga am problème nag mu ko kon nag yàlla ñu yàlla dafa sutura aleykum salaam xayakallah barik fik ar rusdu fi taatillah njub daal mu ngi ci topp yàlla soo déggee ñuy tàgg nit ku baax la seetal ndax jub na wal xayyi wasuf fi lmaasiyatillah bew ak ndof mi ngi ci moy yàlla subhanahu wa taala ñeenti njàngin yi ñeenti njëriñ yi loolu la ñuy jëlee ci aaya bi ñu war a jël léegi nii waaye ba la ñuy jël aaya bi mbokk yi aaya bi dafa am sababu nuzul lan moo tax mu wàcc aaya bii ñuy jël tey muy aaya 186 dafa am lu tax mu wàcc lan moo tax mu wàcc mooy warada anna anna jamaa min as-sahaba saalu nabiyi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qaa'iliin aqariibun rabbunaa fa nunaaji am ba'iidun fa nunaadi jële nañ ci boroom xam-xam yi ñu ne benn mbooloo ci biir saxaaba yi soo déggee saxaaba mooy ñi àndoon ak yonent bi wër ko gëm ko ñooñu ñooy saxaaba yi ñu ne lenn ci ñoom benn mbooloo dañoo laaj yonent bi ne ko sunu borom dafa jege suñ koy woo ñu wax ndànk walla dafa sori ba buñ koy woo ñu yuuxu dégg nga luñ ko laaj arabuna qarib ndax sunu borom dafa jege fanu naa jiihi ñu ñu déeyoog moom déeyoo soo déggee waa ji mi ngi déeyoog kenn daf ko daf koo jege soo déggee waajaa ngi yuuxu kenn daf ko ñu ne ndax yàlla dafa jege ñu déeyoog moom wala dafa sori ñu yuuxu woo ko fa anzala allahu taala yàlla daa di wàcce qawluhu aaya bi ñu war a jël wa ida saalaka ibadi anni fa inni qarib ujibu daawata daay ida daan wal maana nee na aaya bi maana bi mu tënk mooy al munajat déeyoo soo ko déggee ñi koy wax ñaar ñi ñi ngi déeyoo ban firi nga koy jox mooy ñoom ñaar ñu ngi ñu ngi wax koo dégg day déeyoo mooy dafa am ku muy waxal mooy almukaalama ban façon wax la nag déeyoo ban façon wax la wax la mais ban façon wax bu suufee ñoom ñaar ñu ngi déeyoo gis naa leen ñuy déeyoo xaw ma lu ñuy wax nag da ngay dégg sax ki koy nettali xaw ma lu ñuy wax mi gis naa leen ñuy munum munumi kon mooy waxu ndànk almunaajaat mooy wax ndànk doo yëkkati baat bi xaf di sawt wal munaadaatu nag yuuxu woote ci kaw mooy ki ngay wax ñi nga dégg ñi sori ñëpp dégg li ngay wax loolu mooy almunaadaat bi raf i sawt da nga yëkkati baat wa ijabatillahi taala daawatu abdihi qubulu talabihi wa ita wa itaauhu matlubuhu nee na wuyu si yàlla nag subhanahu wa taala mooy soo déggee diw dey wuy ji na yàlla mooy dafa dégg yàlla woote mu daal di wuyu sunu borom subhanahu wa taala bari na lu mu wax ci alquran wuyu ji leen aji woote ji ajibu daa'iyallah ci Sénégal nga gis ñu jël aaya bi takkal ko benn waay garaat ne yonant la bi mu ñëwee dafa ne ajibu daa'iyallah Sénégal nag amu fi amul yonant nag nit ñi fi nekk lu ñuy baax baax nag du ñu ay yonant bu fi kenn yëkkati garaatu ab sénégalais ba yóbbu ko ci maqaama yonent yi alquran vingt cinq yonent la ci yàlla wax kenn du ci sénégalais alxuraan musta wàcc ci ab sénégalais ku fi am sa nit ku baax ku baax la kenn waxul baaxul ku baax la yemale ko ci dafa baax waaye bëgg na yonent la kon de weddi nañ ñun ñi ci biir jàkka yi ak ñi dégg sama kàddu ku gëm ci Sénégal am na yonent bu fi wàcc ku ñuul la yaayam ak baayam nekk sénégalais yow yéeféer nga waxuma yow yéeféer nga laa wax anta kaafir yéeféer nga bu yeboo loolu ñu dugal ko suñu bopp ndax da ngaa weddi alquran yàlla moo ne muhammad sallallahu alayhi wa sallam maa kaana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallah wa wa xaatam moo tëj moo tëj buntu yonent yi di tëj ah yàlla ne tëj naa ko yéen ngeen ne tijji ngeen ko ba pare yonent bi mu ne laa nabiya baadi yonent dootul am sama ginnaaw ni ñuy waxee ab sénégalais yonent la ba jël ay aaya di ko jox naan ba mu ñëwee dafa ne ajibu daa yàlla wuy si leen woote yàlla bi mën nga woote mais doo yonent dangaa nekk kuy jottalil yonent yàlla muhammad nit mën na ñoo woote ci lislaam ginnaaw yonent bi mais lan lañ lay tuddee ban tur mooy woote katu yonent bi jottalikat wala ñu ne borom xam-xam jeex na foofu rek nga yem waaye yonent nga képp ku gëm ne yonent nga yéeféer la ginnaaw yonent yàlla muhammad yonent amatul sallallahu alayhi wa sallam alquran ci moom la wàcc jeex na beneen téere dootul wàcc loolu bu yemoon ñu dugal ko sunu pas-pas loolu du ay kii de loolu pas-pas la aqida la aqida ku gëm ne yonent wàcc na ginnaaw yonent bi waxuma sax Sénégal àddina bi yëpp ku fi gëm ne yonent wàcc na ginnaaw yonent bi rek yow yéeféer nga loolu mu leer sunu bopp wuy ji yàlla mooy wuy ji woote yàlla nangu ko def li woote bi sant loolu mooy wuy ji woote yàlla te wa ma alal ibaadi warul jaam ñi illa an yastajibu li rabbihim lu dul ñu wuy ji seen borom jaam yi du ñu am jàmm ci kaw suuf du ñu am jàmm ci suufu asamaan si du ñu mën a dund dund gu neex wax naa léegi fi ma demoon ci benn waxtaan laa jógee nee naa leen 2000 dañoo mere Ablaye Abdou Diouf daal di jëli Ablaye Wade ñoo ne ko kaay yóbbu ñu aljanna wala du loolu fu ñu mujjee ak moom mooy jël ay yet aljanna la ñu waxoon mu yóbbu ñu mu indi ñu ba suñu distance ñu nag jahannama 30 kilomètres mu arrêté ñu ñu jël suñuy yet dàq ko génn ko nangu force fal force mbir mi indi keneen du loolu lañ def du loolu lañ def de waaye mbir mi nekkul foofu xam nga mbir mi fan la nekk. ci sunu pas-pas yi sunu imaan yi walaw anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alayhim barakatin min asamaai wal ard yàlla nee na man maa yor caabi ji barke xéewal yi barke bi ak xéewal yi man maa yor caabi yi kañ laa koy ubbi bunt bi dama ko tëj kañ laa koy ubbi bu ma nit ñi gëmee ragal ma rek ma ubbi ko su ma ubbee xéewali asamaan barakaatin min asamaay wal ard asamaan sotteeku yëf yi daal di génn ci biir suuf mu daal di daje nit ñi am jàmm kon ndeke du nit ñi du diw du diw moo ko def du diw yàlla la walaw an na la wax ahlal qura amanu wattaqaw mu ne la fatax naa damay ubbi baat boobu lay utiliser baatu ubbi kon lan ngay dégg ci baatu ubbi dafa am lu ñu tëj yàlla lan la tëj mu ne barak dafa tudd baat bi baat bi la alquran ni barakaat waxul benn barke barakaat min as-samaa'i wal ard xéwal yooyu la yàlla tëj parce que ñun duñu ay jullit gëmuñu yàlla imaan bi moo des ak taqwa bi kon ndeke loolu bu amee rek hatta bu fi ab yéeféer nekkoon jiite réew mi réew mi naan même bu doon ab yéeféer moo fi jiite nit ñi ragal yàlla topp ñu yéeféer bi mais dañoo ragal yàlla gëm yàlla yàlla du xool yéeféer bi mais jullit yi lay xool daal di naatal seen àdduna léegi nag kayfa bi ay muslimun ñun ñëpp ay jullit lañ te mënuñoo am jàmm kon ça veut dire que imaan yi ak ragal yàlla bi moom moo amul mbokk yi li war jaam yi mooy ñu wuyu yàlla nan lañ koy wuyoo mooy ñu gëm ko ñu topp ko fi amrihi wa nahyihi li mu digale ñu def li mu tere ñu bàyyi am na benn téere bu tudd Laxdari téere bu ñuy jàng fiq téere bu ndaw lan la lay wax mooy topp yàlla ci lim la digal topp yàlla ci lim la tere topp yàlla ci lim la digal nga def topp yàlla ci lim la tere nga bàyyi ñaar yëpp topp la ñun nag dañ xool suñu bopp ndax li yàlla digale def nañ ndax li yàlla tere bàyyi nañ mu ne wa bi zalika ci lii yu timmu rushduhum ci la seen njub di mate soo déggee nit dafa jub mooy dafa topp santaane yàlla topp santaane yàlla alquran mooy jubal nit jàng nañ barki démb samedi passé yàlla bu muy wax alquran dafa ne shahru ramadan allazi unzila fihi alquran lu mu ci teg hudan linnas ba mu waxee encore ci début baqara zalika alkitaabu laa rayba fii lu mu ci teg hudan alquran dafa ñëw pour nit ñi jub ñëwul pour nit ñi di ko sangoo ak di ko naan ak di ko takk ci ndigg yi ak di ko teg meuble di ko meuble ci kaamil yi ci oto yi koo wax mu ne boo am naa benn kaamil am naa benn kaamil en anglais ah yow kaamil moom demee Angleterre lañ ma ko may alquran ñëwul pour bibliothèque yi ñëwul pour armoire yi ñëwul pour ñu dee ñi boobu moo gën a garaaw nag alquran ñëwul pour ku dee benn borom xam-xam ndeysaan yàlla na ko yàlla yërëm mu ne alquran dafa ñëwoon pour dundal nit ñu koy jàngal ku dee ñu ne dalil mu ne suratu yaasin alquran ñàkk jàng alquran moo tax ñuy jàngal alquran ku dee yàlla la wax li tunzira man kaana dégg ngeen yéen ñëpp eggali ngeen aaya bi li tunzira man kaana hayyan nañu waar alxuraan pour kuy dund ku dund kuñ bàyyi ba waa ji dee ñuy ñëw naan ko yàlla nee na ngeen julli ngeen woor joxe azaka dem maak waa ji daa dee mi ngi dee ñu naan ko qaala allahu taala wa ma xalaqtul jinna wal insa kii dafa dee illa li abudun afa hasibtum annama kii dafa dee te est ce que day jëy jëy jëriñu amatul ci moom njëriñ te ñun noonu la ñuy def ñu bàyyi ba nit dee ñu ñëw nag léegi di jàng alxuraan léegi moom lu mu koy juralati te alxuraan moo nu ñu ne li tunzira man kaana hayyan baat bi la yàlla wax kuy dund nañu waar alxuraan pour kuy dund kuy dund ñu bàyyi ba waa ji dee ñu ne ñoo leen ñu jàngal ko 47 kaamil le médecin après la mort ñu bàyyi ba nit ki dee ñu dem woo docteur docteur bu ñëwee lu muy wax danaan saye saye di lay wax baat boobu saye amul njëriñ dan nañ yàlla jubal mbokk yi kon insha allah ngoonuk tey gi aaya boobu la ñuy jël muy aaya 186 a'udhu billahi minash shaytanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم واذا سالك عبادي عني فاني قريب ujibu dawata dai ida daan falyastajibu li walyuminu bi laallahum yursab- yarshudun walyuminu bi laallahum yarshudun sunu borom ne wa ida su fekkente ne wa ida su fekkente ne saalaka laaj na la yow muhammad ibaadi sama jaam ñi bu la sama jaam ñi laajee annii ci man yàlla fan laa nekk bu la jaam ñi laajee yow muhammad waaw yàlla moom fu mu nekk ne leen fa inni man qaribun dama jege man yàlla dama jege dégg leen baax aaya yi wa ida su fekkente ne saalaka laaj na la ibaad yi sama jaam ñi ñan la yàlla intéressé jaamam yi ku yàlla ñor mooy laaj yàlla ku yàlla ñorul loola sa xel sax du dem ci yàlla loolu moo nu dal dangay gis ku feebar wala kenn ku am problème ku am jafe-jafe ku nekk ci nangam du xalaat yàlla sénégalais saa yoo déggee mu ne yàlla day fekk wër na ba sonn mu ñëw ne cay ñu la lan la mu ne yàlla day ci des mbir mi de amatuma ci yaakaar yàllaa ci des xoolal amatuma ci yaakaar yàllaa ci des amatuma ci yaakaar yàllaa ci des inna lillahi wa inna ilayhi rajiun non pas-pas yu gaaw moo fi ama pas-pas yu triple kon ça veut dire que nit ñi ñoo am ñoom nga am yaakaar effectivement gis ku ne man yow laa yaakaar adduna ak àllaaxira musiba la yow laa yaakaar adduna ak àllaaxira wala mbir mi yow rek laa ci yaakaar yaakaar ma ci kenn nag léegi ana yàlla du faju nit kuy yaakaar yaakaaral yàlla bu la jaam ñi laajee man yàlla fan laa nekk gis nga moo tax jullit kañ la ñuy xam ne gëm na yàlla mooy say problème yëpp nga koy njëkkee ci yàlla say problème yëpp nga koy njëkkee ci yàlla yàlla nekk sa xel sahabatul kiram dañ leen ne tey ngeen dee nit ñaa ngi dajaloo inna nasa qad jama'u lakum faxsawhum ragal tiit leen nit ñaa ngi dajaloo pour yéen xam nga lu ñu wax wa qaalu xasbuna allahu wa ni'mal wakil ñun yàlla moo nu doy Moussa bi ko Firawna sësee ci géej gi mu ne nii gis géej mu gestu gis armée Firawna bi taxaw ak arme yi ñi mu àndal tiit comme amuñu imaan naan ko inna la mudrakuun dinañ ñu jot tey ñu dee xoola fi ñu indi ñu ngi nii léegi mënuñoo daw bu ñu dawee dugg ci géej gi lap suñu tourné Firawna rey ñu moom am na yaqin mu ngi naan leen kalla inna ma'i inna ma'i man inna ma'i rabbi sama borom mi ngi ànd ak man naan li gars yi déedéet dal leen dal leen ñu naan ko nu ñuy dale géej ak armée bi mu naan yàlla mi ngi ànd ak man xoolal yàlla mi ngi ànd ak man Ibrahima bu ñu koy lakk Jibril ñëw taxaw ne ko loo bëgg ma def mu ne ko pour lan mu ne non su su fekkee am nga ci man soxla ma fay sab mu ne ko sama borom nag anamu ana sama borom gis nga pas-pas jullit yonti hatta hatta yonent yàlla muhammad ak aboubacar ci xaa ci ci xëy xunt mi saanis nay ni is huma fi lgaar is yaqulu li saahibihi laa tahzan laa tahzan inna allaha maana inna allaha maana jullit jullit yàlla dafa yàlla da ko war a jege mais heure ma ñun xawma nu mu koy waxee ñun yàlla daf ñoo sori sénégalais yàlla da kaa sori wóoluwul sax yàlla nag wóoluwu ko parce que yàlla kese kese doo ci xaw a boole dara da ngay gis benn waaye ne la taalal loxoy ma ñaanal la bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin rahmaani rahim malik nga gis waa ji xeeb ñaan bi ci kanam gi ngay gis mu découragé te fatiha allahu akbar waa ji xeeb ñaan bi inna il faut nga wax yoo xam ne wala nga ne ko léegi da ngay dem nga ut ginaar gu ñuul kuk kuk kuk wala nga ut mus mu ñuul kuk wala xaj mu ñuul kuk wala nga ut gaynde gu ñuul kuk yii nga gis mu ne wuu si ngeen xamu leen kii xamu leen kii ci ay ginne la àndal laa la wax waay Sénégal moo tax loo gis fii sëriñi tarayaax yi ñëpp ay immeuble lañ am sëriñ yi sëriñ yi ay millionnaire lañ ñoom ñëpp ay milliardaire lañ parce que nit ñi gëmuñu yàlla yonent yëpp dañoo ñàkkoon sahaaba yëpp dañoo ñàkkoon wala ay benn benn sahaaba lañuy wax ñu am ñii ñoom ñëpp dañoo am du benn du benn de kon nañu defaraat nañu defaraat pas-pas yi wa isa saalaka bu la laajee ibaad yi sama jaam yi allahu akbar ñii am nañ grade bu rëy ñii yàlla moo nangu ñii ay jaamam lañ du benn de xam ngeen lu tax muhammad raw ñu yàlla moo nangu ne muhammad sama jaam la subhaanallazi asra bi abdihi sell ñeel na yàlla mi xaat mi mi rañaane jaamam xoola yàlla moo nangu ne muhammad jaamam la xam nga ñun ñu ngi jaamu est-ce que yàlla nangu na ne ñun ay jaamam lañ waaye muhammad moom yàllaa ko nangu ara ayta allazi yanha abdan tabaraka allazi anzala alfurqana ala abdihi wa innahu lamma qaama abdullahi ismi moo tax mu ne yonente bi tur boobu moo ko gën a neex su ko sahaaba yi doon wax nangam Moustapha Ahmad nangam Abal Qasim mu ne wax leen ma abd innama ana abd fa qulu abdullahi wa rasuluhu man jaam laa ne leen ma abdullah ak wa rasuluhu ak yonent yàlla moo tax tur boobu moo gën a neex yonent bi mooy abd e yow jaamu yàlla bi mais Sénégal bi est-ce que ñeme ngaa wax ni yow jaam nga yow jaam nga Sénégal ñaari baat yi kenn bëggul ku ko ku ko ku la ko wax ragalal yàlla ñeme ngaa dem tey bi kilifa recevoir la ubbi bunt bi toog di wax yow nga ne ko xam nga lu ma indi ma ne dama mën nga ragal yàlla yow eh ko ñeme te pourtant wax nañ ko yonent bi de yonent bi wax nañ ko ko de yàlla ne ko yaa ayyuhan nabi ittaqillah ñaata ñaata ñaata aaya la loolu yaa ayyuhan nabi ittaqillah bopp saar ñaata bopp saar la ñett suratu tahrim yaa ayuha nabi ittaqillah suratu talaq yaa ayuha nabi ittaqillah suratu ahzab yaa ayuha nabi ittaqillah yàlla di woo yonent bi naan ko yonent mu naa mu ne ko ragalal yàlla dafa ragalu yàlla ah continuer sax ci moy ci loolu la sax ci yaa ngi ci de téel nag mu dëgër ñun ñeewuñ ko wax ñeewuñ ko wax kenn ñun fii ah nan leen yàlla jubal beneen bi mooy jaam boo la nit fëggoon fajar ubbi bunt bi kii kan la yow jaam nga rek da nga naan ko xaaral ma ñëw booy del siwaat doo indi ay loxoy kese te pourtant nit bu deewee ñu teg ko ci kanamu jàkka ji ilimaan bu ñëwee danaan kii jaam la baayam jaam la yaayam jaam la nit ñi ne amiin laay wax nga dëgg ñu ne ko jaam doomu jaam doomu jaam fi mu nekk nii nii nii ku la ko wax nii doo reer tey ñun ñi ñëpp bu ñu kenn ñëwoon nañu yéen ay jaam ngeen yéen ñëpp ay jaam ngeen ah doomu jaam yi ngeen doon doomu jaam yi ba pare bëgg a jël dàllam dem gaa yi dañ koy njëkkante ci buntu jàkka ji pourtant bisa ngi ñëw ñu wax ñu ko nga dégg nit ñi ne est-ce que lay dëgg la waaw gis nga doomu adama jaam la anta abd jaamu yàlla nga jeex na loolu yàlla moo moo wax ne ñi ay jaamam lañ isa saalaka bu la laajee ibaadi sama jaam yi an nii man yàlla fan laa nekk wax leen fa inni man qaribun damaa jege soriwuma yàlla dafa jege yemul ci jege de rek waaye ujibu daawata daai iza daan allahu akbar damay wuyu ujibu damay wuyu daawata woote addaai kii woote iza daani mu fekkee man la woo kon lan ngay dégg fii mooy balaa yàlla di la wuyu man koy woo mais boo woowee keneen yàlla du la wuyu yonent yàlla Moussa dafa gis kuy jaamu xërëm xërëm mbokk yi xërëm laa wax def benn estati bu ngand taxaw di yuuxu naan yaa sanam yaa sanam yaa sanam xam nga weeru koor bu jotee da ngay def li yenn jàkka yi ñu ne ilimaam bi day def ñeent fukki xul wallahu ak benn doo ko def benn ràkk di ngeen gis yéen yenn jàkk yi noonu maanaam ràkk bu nekk ci naafila bi ñeent fukki xul wallahu ak benn lay nekk léegi xam nga dafa bëri day mujj ilimaan bi bu jàngul wala du jàngul wala qul la la sama la leen ko fanaat qul la la sama la leen ko fanaat qul la la sama la leen ko fanaat qul la la sama la leen ko fanaat xool dootul wax qul la ay moo lay jël di joppati première qul la bi dong mooy normal qul wallahu ahad allah sama la leen wala qul la la leen ko fanaat qul la la allahu akbar ñu ne benn rakk jóg léegi gis nga bu sa yàgg booy wax benn mbir di ko wax di war répété di répété di répété di répété bu yàggee dootoo wax mbir mi loolu moo dal kii doon jaamu xërëm bi naan yaa sanam yaa sanam yaa sanam ba ci yàgg rek laa miñ bi juum mu ne yaa samad yàlla ne ko labbayka yaa abdi wuyu naa la yow sama jaam Moussa ne yàlla yéeféer ngay wuyu yàlla mu ne yaa Moussa hal min samadin xayri Moussa ndax am na ko tudd samad Moussa ne ko déedéet yow dong yaa fi tudd samad mu ne waaw waa ji woomu du tax du ma ko wuyu man maay samat man la woo dama koy wuyu yéeféer kon bu jullit woowee yàlla nag jullit bàyyi ba dugg guddi gi xaaj nga dem jàpp lal sa sijaada julli si jóot nga wooy sa borom dana la wuyu wala du la wuyu ak lii mu wax ni isa saalaka ibadi anni dina la wuyu wala du la wuyu kon ñun la te li gën a doy waar mooy yanzilu rabbana ila samaai dunia kullu layla yàlla day wàcc ba septième asamaan waxul bi waxul vendredi ci guddi de waxul lundi de waxul dimanche dafa ne kulla layla guddi gu nekk yàlla day wàcc ba septième asamaan xam ngeen lu muy wax ana kan moo may woo ma wuyu ko ana ku may ñaan ma may ko ana ku may baalu ma baal ko heure boobu ñun ci lan la ñuy fekk am na koo xam ne sax yenn saa yi portable bi mu ne kil mu ne ko bloqué ko waaw daal di koy njaganaayoo ah daal di départ bloqué bloqué portable bi te moom moo ko réglé woon de bi muy tëdd am na istidaad préparé woon noo tey moom incha allah so bi mu def tëdd rek seytaane daal di changé xalaat bi ndeysaan bul na looy naa fi la moom yow yow bis bu nekk yaa ngi naafila te sa problème yi rek la wul yow noppalul gis nga seytaane baaxul seytaane seytaane du nu bàyyi billahi seytaane du nu bàyyi du nu bàyyi parce que xam na ne bu nu bàyyi dañuy dugg aljanna mooy foog mu la ngaa munu yow looy naafila yow looy kii yow looy ñaan looy teel a yow yow teel a dimanche mënoo noppalu sax benn dimanche bi boo ko tardé jàkk lu mu lay jëriñ bismillah rek nga accéléré sàng tànk yi sàng bopp bi départ xam nga ban heure nga yeewu 10 heures nga yeewu nag léegi man tey def naa musiba de def naa toj toj de inna li daan naa la garaaw defal nga jàpp rek julli tuub tuubal tuubal bu tuubee yàlla baal gis nga baat boobu seytaane nax na ci bëri tuubal yàlla baal la bu tuubee yàlla baal la tuubal rek tuubal tuubal ñan lañu yàlla jubal yàlla mu ne ujibu damay wuyu daawata woote addaa'i ki woote assaa'il rabbahu haajatahu ki ñaan yàlla ay aajoom man yàlla dama koy wuyu addaa'i mooy kan mu ne assaa'ilu rabbahu haajatahu mooy ki ña ki sujjóot guddi googu heure boobu waxtu woowu wala ki am aajo woo yàlla yàlla nee na dama koy wuyu man yàlla dama koy wuyu yonent bi nee na yàlla rus na doomu aadama ne nii wàcca loxo yi te yàlla du ci def dara yàlla rus na loolu ma ne kenn ci ñun fii rek na nga xool sa bopp boo ñibbi woon léegi benn waay ñëw tilim yëre yi tilim bopp bi cukk tasaaroo nga gis ci moom tuñ yaa ngi wow kong ndax xiif mar mu ne la sëriñ bi ñetti fan a ngi nii sama kër sama njaboot lekkuñu naanuñu gis nga ni ma mel ni ñoon noonu la ñu nooy def nooy def nooy def ci waa jooju nooy def ci waa jooju mbokk yi kenn ku nekk ci ñun fii koo xam sa bopp rek boo gisee ku mel noonu nooy def fekk yow yaa am nga loo denc tuuti nooy def am nga loo denc tuuti nooy def nag xaar ma ñëw gis nga mastama ak borom bi ndax ñun ñëpp yàlla yërmande c'est que ñun ba léegi rek ñun ñoo jaaragul ci yoon bi ba léegi rek dafa des wallahi wallahi yoon bi ku ci jaar yegg wallahi yoon bi ku ci jaar yegg wallahi yoon bi ku ci jaar yegg wallahi ñun ñoo jaaragul ci yoon bi ñun ñoo xamagul naka la ñuy jaar ba egg jaar ci yoon bi ñun rek ñoo ko xamagul waaye wallahi buñ bu buñ ci buñ ko miinee buñ ko xamee buñ ko tàmmee wallahi sunuy aajo dootul taxaw da ngay tëdd di nelaw aajo yi di réglé wu nga yeewu di tiit ku fi indi lii ñu ne la diw te waxoo kan na ko indi yàlla mooy moo moo wax loolu yàlla moo ko wax moo ko assuré wa ma min dabbatin fil ard illa ala allahi waaw waaw billaahi dëgg la billaay billaay billaay billaay billaay mis misaal bu wax dëgg la bu misaal bu dund kenn ci ñun papaam ak yaayam du ko seetaan da ngay gis paa bi sax mu yor tey cent franc kese wàcc cent franc la yor mu jóge war a jóge Pikine du paas di dox kri kri ndax ndeysaan xam ne cent franc bi pour bu ma demee boog sax wala téeméer bi ma demee sax xale yi jënd ci fonde muy dox moom du paas parce que tey xam ne ne téeméer laa yor du ko nangoo lekk moom ñëw sangu tëdd ñu gaay ne ko yow mu ne xoolal golo xam boote déedéet day ñëw ne ah soxna si téeméer a ngi nii de jéemal jënd fonde nangam nangam nga def ci soow xale yi naan guux boog tëdd gis nga parce que moom mooy mooy mooy mooy seen baay yàlla yàlla muy borom jaam yi nag fekk ñun ñoo jaaragul ci yoon bi rek ñun ñoo xamagul naka la ñuy def ba yegg ci yàlla mais dafa jege qarib fa inni qarib ujibu daawata daa'i mata bi sart bi sart dafa am sart iza daani bu ma woowee man kese dendelewuma kenn amul kenn ku mu làq ci benn ruq nag bëgg bëgg maa nax loolu mooy wax bi mooy pas-pas bi ci biir est-ce que yàlla rek moo fa nekk ñaan yi ñoo baaxul ñaan yi ñoo baaxul façon bi woo bi ñuy woo yàlla moo baaxul dafa am lu ciy rax tilim te yàlla moom inna allaha tayyibun laa yaqbalu tayiban nit sujjóot na di jooy rek sujjóot di jooy ñaanul de dafa sujjóot jooy rek ngir yàlla yàlla wuyu ko waxuma laak nag ku ñaan te yàlla lan la wax aqrabu ma yakunu al abdu min du'aihi wa huwa sajid doomu aadama kan la gën a jege yàlla mu ne boo sujjóotee jege nga yàlla mais nga sujjóot amoo looy xalaat lu dul billaahi bàlla gay bu jàppee Yékini dina ko rey allahu akbar di taaya si xam naa combat bi di ñëw dina garaaw waa démb signature contrat bi asalaamaaleykum salaam boobu julli ban julli la jaan ba ban ñaan la tey ñun ñëpp loolu mooy suñu problème nga gis ku ne allahu akbar tax ji xam naa ne kii temps yi yooyu ngay fekk yaa ngi ci kanamu yàlla ruko fàtte sax ne subhaana rabbiyal azim lay wax nga nekk fa allahu laa ilaaha illa i man fàtte naa ne damaa ruko di siggi war a taaya naan isa jaat i subhaan waay man wala yooyu léegi nga nga nekk nga bëgg a nekk ci loolu nag bëgg a nekk ci loolu bëgg a nekk ci loolu bëgg a nekk ci loolu mooy mooy maa ngi julli rek man sama julliwuloo julliwoo parce que musoo nekk allahu akbar bàyyi xel ne yaa ngi taxaw ci kanamu yàlla xool ni ngay jàngee xool ni ngay rukoowee xool ni ngay sujoo di xeex ak sa xel mi balaa muy génn te seytaane balaa muy balaa mu lay gën a gaaw a jege nag mooy nga ñëw dina da ngay julli nga ñëw da ngay julli boo nee ne allahu akbar rek egsi na commencé naan la waaw gaawal dañuy reer bàyyi la de est-ce que xam nga ne diw mi ngi lay xaar est-ce que xam nga amoon nga rendez-vous c'est film bu grand moom moom lañ nar a teg léegi doo gaaw surtout nag bu dee bëree moo wax nga ne gaawal gaawal ñu ngi bëgg a daaneel sa mbër sama benn xarit daf may nettali seen kër papaam ndeysaan dafa bëggoon benn mbër ci jamono ji yàgg la mbër boobu di bëre paa bi jël rajo bi teg ci wetam nii ba pare ne allahu akbar wala teg rajo bi ci wetam de ne day julli ñu jékki-jékki rek boobu kii moo fi nekkoon alaaji Moustapha Ndiaye Moustapha Ndiaye rapporteur moo fi nekkoon jamono yooyu génn na àdduna mu ne dugg nañ diw dugg na ko dugg na ko dugg na ko tugu na ko ah ah rek paa bi ne du jóg de du jóg de te mi ngi julli mu ne du jóg de du jóg fekk mu ngi ci julli xala loolu nu mu garaawee li gën a li gën a garaaw sax mooy léegi li ñuy def da ngay gis ku ku- ku yor écouteur ku yóbbu ku yóbbu écouteur biir juma yóbbu écouteur biir juma ilimaan di xutba nga gis ko mu mu samp écouteur ci nopp yi di déglu combat wala muy déglu football wala muy déglu match wala muy déglu leneen biir juma nga yor écouteur yaa ngi ci jàkka ji di julli si te- te- écouteur dina da ngaa julli si nag parce que xam nga ne bëggoo ne bëggoo ñu ne yow làmb bi moo tax tey ñëwoo jàkk nga takk écouteur yi nag wàññi rajo bi nag ñëw nag sabar yi daal da nga da nga da nga ñu naan diw dugg na mu ngay tuus nga yow yaa ngi yaa ngi déglu ak écoute ay na waaw ana yàlla c'est que lii mooy sunu problème lii mooy sunu feebar moo tax xol yi wow ci xamatuñu nu ñuy def ba ñaan yàlla sunuy ñaan yàlla du ñu teewlu du ñu teewlu du ñu jox yàlla gët ah même même sa papa boo ñëwoon tey ne ko pa di ko ñàkkal fayda booy jox ko 1000 francs waaye di bokkul ak nga ñëw toog ci wetam ah, ah. toroxlu ne ko góor gi wax dëgg yàlla fan yi moom xam naa daanu mel ni ma foofu rek ci dara du benn am nga ñu ne ko góor gi mille laa soxla quoi du benn bi- ban la lay gën a gaaw a jox waaw ma sama ak sunu borom subhanahu wa taala kenn warul tëkkale yàlla sax ay misaal mais dañuy jox nit ñi ay misaal rek pour ñu yeewu mbokk yi yàlla nee na ujibu damay woote damay wuyu daawata woote addaa i woote kat isa daan bu ma woowee xool yàlla lu mu ci teg yemul ci loolu de mu ne fal yastajibu lii dafa sàkku ci nit ñi pour nit ñi wuy si ko moom yàlla fal yastajibu lii yàlla ne nañ ma wuy si sàkku ci mbindeef yi ci jaam yi ay yujibu nidaa yi nañu wuy si sama woote is isa daawtuhum bu ma leen woowee li taati pour topp ma wa taati rasuli ak topp sama yonent bi fi'lil ma'mur def santaane yi wa tarkil manhi bàyyi tere yi wa taqarrub ilayya ak jéemmaa jege bi fiili alqurbi ci jëf jëf yi nga xam ne buñ ne lii ku ko def jege yàlla looy xaar mbir mi ko def jege yàlla wa tarki maa yujibu suxt mbir mi ko def yàlla mere la ñaata ci Sénégal fii lañ jàng yàlla rëbb na ku meesu yàlla rëbb na ku meesu jàng nañ xadis bala jànguñu ko xooleen Sénégal mbir mi ko def yàlla mere la nga gis nit ñi di ko def te kenn du ci wax dara ah da ngay dégg sax yenn saa yi sax boo ko buggee waxtaanee ñu ne non bu bu xam nga rek bàyyi noonu rek xam nga dëkk bi moom waxatuma sax ñu wax ñu wax ne ñi ko def dañoo def lu bon mais yow mi ko bëgg a wax sax léegi yow la nit ñi di mere ndeke yàlla nee na fal yastajibu li nañ ma wuy si wal yuminu bi nañ ma gëm allahu akbar fal yastajibu lii ay nidaa yi nañ wuy si suñ déggatee sama woote pourtant tey ministre pré- euh, président bu bees bii bu ñëwoon léegi télé wala rajo mu ne damaa bëgg nit ñi wuy si ma pale suba na ma ñëpp wuy si nag kan ci ñun fi moo dul dem yaakaar naa ne bu fekkoon ne dafa ne 6 heures billahi dina fees 5 heures ah rawatina nag mu lim ay tur diw diw diw diw diw diw bëgg naa leen ngeen wuy si ma suba ñooñu sax bu ñu nee seen mbokk ñu naan yow ban heure lañ la woo nga ni 4 heures ñu ne la 2 heures jot na demal yow loo fii def 2 heures jot na kuñ woo 3 heures président woo ku te- te- gis nga da- dañu dañ commencé di la menacer waaye yàlla nag yàlla ne fal yastajibu li nañ ma wuy si bu ba mu ci mu ne wala yuminu bii nañ ma gëm xoolal yàlla doyoon na rek mu ne gëm waaye wala yuminu bii nañ ma gëm yow yàlla bu ñu defee loolu lan la ñuy jural mu ne la allahum yarshudun ndax nit ñi njub bu ñu defee ñaari rek jub la allahum ndax ñoom yarshudun buñ ma wuyusee gëm ma dañuy jub kon lu tax nit ñi jubuñ wuyusi wuñ gëmuñ loolu kese moo tax jubuñ wuy si wuñ gëmuñ fekk wuy wuñu yàlla fekk gëmuñu yàlla du ñu jub ndax lii jubalaate fii la nekk fii fii la ko yàlla denc beneen idéologie bu nit jàng beneen xam-xam beneen formateur beneen beneen beneen bu yeboo nga am 400 doctorat 1000 licence boo jàngul fii doo jub luñ la dénk nga lekk ko waaw luñ la dénk Sénégal ban problème lañu am problème mu milliard ñaata milliard ngeen dégg mu ngi ci àll bi wala dañ ko jël ñaata ñaata lu ko waral mooy jubuñ laallahum yarshudun kon mbokk yi lii moo doon darsu tey asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu